sa technicien yi ku ne indi sa clé USB maanaam la nga joxe woon ñu seet ko te ne baaxut nga indi teg ñoom ñu indi teg ñu comparé loolu la ñu waxoon koo xam ne yow dañ daa am fanweeri junni euh, parrain ku ci ne machine bi yokk ci a a a a fanweeri junni yi a kooku pay bu ñu toogee nañ gis ne ah way non lii kat erreur la ñu corriger ko suñ ko corriger mussa mi yor fichier bi su baree jàll ñu ne ah kon yow bokk nga su warul jàll ñu ne waaw ah, kon yow bokkoo ak leneen ak leneen yooyu yëpp wax nañ ko fi ba tàyyi soxla lu ma di ci dellu si seetuñu ko seet suñu ko seet buñ ko seetoon man bu ma ñëwee dugal sama clé fukki minute ak juróom gën gaa bare mu féete boor ñu woo la fukki minute woo xadi eh, colonel fukki minute mu jeex mënoon naa ne mais defuñu ko alors euh, wadd Wade que ci ñun la bokk Karim Wade bi ñuy àtte mi ngi certificat ma ma maanaam ma décret buy wane ne moom mii kat léegi sénégalais rekk la ñu ne ko waaw waaye ba nga koy wax bële paase Eh, nekkutoon kon dégagé nañ la mais euh, euh, defe naa ne li ci nekk rek mooy wax ngeen dëgg parce que lii ngeen di wax ñépp moom la doon wax ca njëlbeen waaye ginnaaw léegi ñépp dañoo wax leneen dañoo bëgg ngeen bàyyi lii ngeen nekk te ñëw fekk si ñii loolu nag du jur jàmm 24 mm-hmm. bii ñuy wax élection nee naa leen du fi am. mais ba fi naree am. Hmm. du doon élection dañ ko koy tuddee waaye du ko doon te bu boobaa. mais 19 candidats yi di battre campagne ñenn élection du fi am wala bu fa amee. élection bi tax may wax. mooy boo xam ne dañuy tànn ci euh, dal ak jàmm ak salaam. loolu moo am nii. Euh, euh, lii lii di dem nii. Mhm. suñ ca yeggee leneen lay doon moom moom laa lay wax. lu ci kanam rawul bët matut fukki fan ak juróom kon nag nun bëggunu bu nu ca yeggee ñu dinu boole ca ña doon seetaan danoo jàpp ne Sénégal weesu na fu muy war a mën a jaxasoo ci élection fanweeri at a ngi ni ñuy wote jàmm ak salaam rekk bu altine kenn ku nekk doxi soxlaam mhm. léegi ñu bëgg dugal réew mi ci loo xam ne lii jaru ko man ma Mamadou Diop depuis 1988 maa ngi voté xam naa li ne ci voté fukki fan ak benn ak ñaar ak ñett nga ne yi wër leen senegal kenn ku ne nga mën a wax ak moom lan mooy sa programme amu fi. Mhm. amu fi dañ koo bëgg a taxañ. sénégalais weesu na foofu. Mhm. alors lay wax. justement est-ce que yéen ngi xool bëgg-bëgg ak intérêt peuple sénégalais yi ci yéen combat bi ngeen di mëne nii sénégalais yooyu nga xamante ne boobu ba tey depuis début processus bi ñu ngi xaar élection am ñu indi report ñuy xaar ñu choisir date ñu leen di traîner ba moment bi ba ñu commencé compagne yéen ngeen xëy ne da ngeen di def recours. mais loolu justement bëgg toppatoo intérêt wu Sénégal moo tax lii ñuy def di ko def lii ñu fay leen bëgg a jëlee ñu jàpp def dugal ci seen bopp ne moo loolooy loolooy jàmm ji déedéet loolu du jàmm ji foofu la ñu wutee alors tey course ah, xam nga xam nga àddina dafa am euh, àddina mi ni muy doxe soxna dafa garaaw torop torop torop am na li ñuy wax ay officine de manipulation et de propagande nekkuñu sax Sénégal mhm. ay milliards doole yi ci lañu parce nit ki attends nag moo ëpp doole nit fas moo ëpp doole nit euh, rabi àll yi ci bari ñoo ëpp doole nit mais nit da leen di domte nu mu leen di domte ba ba ba wulli leen ba di leen jariñoo xel tax nit boo jëlee am xelam jël nga léppam ci mi ay milliards yi milliards bu leen neexee yow mën nañoo def Fatou Abdou ci sa ci sa ci sa yuur gi leen loo xam ne bu subaa booy dem da ngay defe ne da war a sol grand mbubb ni man. ñan ñoo def loolu. te loolu loolu Sénégal dañ ce bàyyi xel bu baax ndax pétrole beeg gaz bi. donc donc bàyyi nañ ci xel ndax drogue bi seetlu woon leen ne ñetti at yi génn Sénégal presque plateforme drogue la. cocaïne. alors ay téeméeri téeméeri téeméeri. milliards lan nga bëgg a wax foofu dafa am lu sénégalais yi xamul. mais lan moo nekk ci suuf loo xamante ne. li sénégalais yi xamul du jeex. comme lan par exemple rek li sa man mii di wax ak yow. Hmm. li ma xam matul asakaay asakaay liy dox ci Sénégal man mii li ma ci xam matul asaka ja far alors euh, dafa ma bëggee bu ko defee ñu ne waaw sénégalais yi du ke seen intérêt mooy parce que dañoo fexe ba dugal loolu ci seeni bopp man dama bokk ci ñi contre loolu te dama bokk ci ñuy xeex loolu xam naa ne nag yombut. Mm-hmm. mais xam nga li nga wax aussi waaye mais attends man xeex naa ñaar fukki at ak juróom-ñaar yoo xam ne dama caa wét ay ay benn benn benn nit Senghor a fi woon buy de élection buy dem Senghor amut adversaire département yi ñooy doon adversaire Matam ne am naa quatre quinze pour cent. Diourbel ne am naa quatre-vingt-dix-sept pour cent euh, Ziguinchor ne am naa quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñooñu ñoo doon xëccoo waaye Senghor moom daawul xëccoo. mais xam nga li nga wax sànq tamit leerul. Mhm. tey ñii seetaan sénégalais yi leerul ci seen bopp. Ah. lan moo nekk ci suuf li nga naan. asaka rek nga ci xam tuuti ci loo xamante ne aujourd'hui mën na dugal Sénégal ci guuta parce que ñun li ñu gis mooy élection présidentielle campagne électorale boo xam ne fukk ak candidat yi ak juróom-ñeent yépp ñu ngi battre campagne dëkk bi dara xew fi lan nga xam leneen walla ah, voilà mu ngoog kon nag daal nañoo war a bàyyi mu jàll oui parce que dara xewul li tax mu am ñu ñu sempi te ñu waroon a bokk am ñu ñu bàyyi ci biir te waruñoo bokk kan lañ bàyyi li ñu ma wax non ci liñ ma wax parce que xam nga am na koo xam ne moom dañ koo bàyyi woon ci biir moom moo génn ne man kat duma sénégalais rek am naa ñaari na am naa beneen nationalité. kooku nekkatul cas c'est Rose Wardini. mu ne nekkatul cas loolu c'est ah, Rose ah, Wardini. mais waaye nekkoon na ko. oui xam nga nekkoon na ko su ma doon conseil constitutionnel loolu su amee te yoon nee na ma yow conseil may naa la liste bi ñu defar su amee jafe-jafe nga dem gëstu ko su amee ku ci ne yow nga bàyyi mu jàll. nga sàggan ba mu jàll d'accord léegi kooku ne ah man kat euh, li euh, maanaam sàmm ci candidat bi ci candidat yi man loolu euh, bokkuma ci mais loolu war naa tax yow nga dem seet ña ca des mais seetuñu ko nañu ante dëgg hein xam nga léegi nag hmm, ba tey ñu ne moom ay aaya la lu mu def. mais loolu dañ ko bind en fait conseil. non oui oui la bokk yow yaa ngi ko gën a xam parce que wax nga ko léegi avec Senghor ba ba léegi li nga xam ci Sénégal bëri na les décisions du conseil constitutionnel sont susceptibles de qu'on recours. oui xam nga leer na ma ne yow yaa ñu ko gën a xam moom. xam nga li ma lay wax gis nga fii conseil constitutionnel bi ku fi mas a jaar ci opposition. ñii na ci pouvoir bi tey bañ nekkee ci opposition. la ñu doon wax ci conseil kon mooy c'est un une justice couchée nun ñëpp ñëpp ñëpp loolu la ñu wax te kenn mësu koo weddi tey nag dafa am lu mësuta am moo tax d'ailleurs ma jaaxle man defoon naa Sénégal nu fexe acteur politique waxuma sénégalais yi sénégalais yi jàmm ak salaam la ñu bëgg ci réew mi élection jot ñu dem vote ji mm-hmm. tànn ki leen doy mm-hmm. loolu la ñu bëgg mm-hmm. acteur politique yi nag